allo waaw kii ya waaye egg si naa génnal non yaay booy mënu ma mënu ma mënu ma wàcc dama yàqamti j'ai d'autres chats à fouiller génnal génnal non mënu ma ñëw mënu ma ñëw maa ngi ni coto bi ok léegi léegi ok si soo yàq si soo yàq nga ma. ah tu trouves hein. nga génn moom maa ne nepp. ah je t'avais dit que le bleu là ça va aller hein. wax nga dëgg de. ah ça te va très bien. yow moom. Hmm. sant mbaw boobu la ci gong gi. Hmm. mën a ëwala fi baax. <laughs> toi c'est un beau parleur hein. ah <laughs> très joli ah. Ngoné est à ah. kii moom jekk ci la dëkk. Hmm. gàtte moom ci la dëkk. ah c'est bien kooku moo ma gënal suñu waa kër. ah oui waaw sama fii laa ko teg. ah ça c'est bien tu sais Ngoné c'est ma sœur. Mm-hmm. Elle est très gentille et toi tu encore rien vu. Elle s'est bien s'occuper d'un homme ah. ah oui ah, na ko de mi ngi ci man de mi ngi may tàggat de. c'est moi dama yàq dama yóbbu ci bërëb yu baax yi. ah c'est comme ça dama habillé. c'est comme ça parce que elle c'est ma sœur on s'est connus depuis Bamako ah. donc elle euh, tu vois elle achetait beaucoup de tchoub moi je vendais des tchoub elle amenait ici pour vendre aussi. mais man li ma jaaxal. Hmm. Euh, si soxo gisuma ko ñu bind ko fii. ah ok à l'enseigne l'enseigne la si soxo te man. gisuma ñu bind si soxla. tu as raison ah. ça arrive souvent tu sais moi je suis un peu cachotier quoi. donc j'ai mis le nom de Jim c'est mon boy quoi. booy yéen a mën a nëbbatu. ah oui <laughs> mais c'est comme ça un jeune la nit boo bëggee dox. Mm. tegu ci maanaam gën amuk yokk. ngeen mm. nëbbatu boo jëmee Tamba. Mm. neel maa nga jëm Kaolack. ah toi là ah, la wax loolu olof sinon tu vas bien quand même. sant yàlla la famille. sant yàlla bu baax tout le yàlla bu baax et c'est cool alors. kii kay macha allah mais. Hmm. yow da nga nekk Mali wala da nga nekk fii. tu sais bon je je suis je suis malien tu sais mmh. comme je t'ai dit je fais business tube et tout ça mais comme tu vois les femmes maliennes elles aiment je dis pourquoi pas je crée pas des ateliers j'ai beaucoup d'ateliers hein, à Dakar Très donc bien. ici mon bureau mais je fais les habits et j'amène à Bamako je je suis un businessman moi machallah noonu la gone bu ay loxom setee hmm. ay ay mag attends ah, tu es gentil yow góorgóorlu rek yàlla na yàlla defal jàmm ah donc ah. je vais après Jim il va faire. Euh, euh, le repassage pour toi. si soxla kii jarul dina passé. kii nee na booy yi il le faut il le faut. nee na booy yi de. <laughs> et eh, Jim. ah viens ici. Naayam. si soxam gars yi <laughs> macha allah. ok allez allez prendre place. li ma lay ñaan la. Hmm. yàlla boo amee loxo. amina. <laughs> alors business bee lépp mat na. lépp mat na. c'est sûr. ok good job. jaajëf. sa desitu xaalis a noonu. mais dama beneen job bu ma la bëggoon dénk. thanks. ban business noonu. xam nga gel bi. mais kii xam naa ko. mais kii sa papa la. waaw mais xam nga gel bi mu àndal. non xam naa ko bu baax kii Fifi loo tudd. ok Fifi dama buggoon hmm. lépp lu takk ci moom maanaam moom nu mu tudd turam dëgg parce que xam nga Fifi surnom la. Hmm. turam dëgg santam fu mu dëkk kuy hmm. ndeyam kuy baayam lu muy def dans la vie ñi muy àndal ses fréquentations ses sorti je veux tout avoir. li muy dox ci suba ba ngoon je veux tout savoir mm-hmm. agenda complet laa bëgg mm-hmm. lépp loo xamante ne rek moom lay def ci life am mm-hmm. pas loo xam ne bërki démb la mais tout sur elle biographie même exactement tu as compris et j'en ai besoin illico presto xoolal sama priorité fi ma toll nii loolu la xam nga ne yow job bi du job bu ndaw agent da may tegal affaire xaalis encore bàyyil de ko ne yow di job ndaw yaay booy ki da ngay yokk sa loxo yokk sa par rapport ak li ma la li ma la njëkkoon job bu mag la biographie nga bëgg mel ni mi laa lay indil de waaw léegi wax ma lu ma lay jox non doublé la affaire bi da ngay business bi kii di job ndaw yaay booy mais xoolal li ma soxla c'est-à-dire virgule ko fàtte waxuma la virgule de lii racontac la du ngontu ci man racontac. j'avais prévu une avance pour toi teel en attendant. racontac neex. boo paree. Mhm. nga def ma signe mais c'est vraiment urgent jàpp ci. non racontac lay doon si foog nga teg ci yeneen nit sax yaa xam. noo racontac boo tëddee na la woon. soxal na ma torop. Mhm. waaye yow andi Pape Cheikh Diallo. <laughs> laajal naa la ana Baye son <laughs> yow fu Pape Cheikh dugg xam nga ko fu Pape Cheikh génn xam nga ko waaye tey quoi. xana Pape Cheikh waxal ma mais yow mi ñu bàyyi la Pape Cheikh kay fa Pape Cheikh ne yaa ko gën a xam yaay boy mais euh, sa gaayen la da ngeen di naan gaayen souvent donc war nga xam fu Pape Cheikh nag. loolu kay am na ndox fa mu gënoon nee na gënum la xam yaay boy parce que lu ma jaaxal mooy man tu sais jour mariage bi je l'ai vu vite fait quoi wax. Mhm. après mariage bi def jéem na def benn truc à la télé pour dafay dafay arrêter il démissionne et tout. Mm -hmm. mais après man j'ai j'ai plus de nouvelles et ça commence à m'inquiéter quoi. mais Baye Cheikh est-ce ko neex rek <laughs> Baye lii du jikkoom yaakaaruma ko. Ah, yàlla baax na ba kanam yi sot de mi ngi si jàmm daal loolu moom moom la wóor na ma peng man. mais lii du lii du ay habitude am quoi man xam naa Pape Cheikh lii du ay habitude am. mi ngi si jàmm daal loolu laa leen wax yaay booy. son yow xam nga ci dara yow ni ngay wax man nii xam nga ci dara. mi ngi si jàmm boo tëddee na la woon mais wi ma bul wax dara instant bii nii waaw xam rek weer bi dee na damaa war a fay lu loxo loyaas beeg carte carte gi bàyyi rek ma teel a daw. mais rakun tag moom rakun tag. waaw maa ngi lay déglu nu mu gën a gaawee jàpp ci nag dégg nga. dama la fay dégg <laughs> jaajëf. ma ànd ak moom. benn grand moo sonné ma ubbi ko mu jox ma ko. ok. maa ngi ñëw dem jàngi. eh nga ne fan nga jëm. jàngi. waañ bi danga ko defar ba pare. déedéet. lan ngay xaar pour defar ko man te sama douche tam dafa tooy léegi laa pare sangu nga fompale ko. waa cours bi ma am tey dama ko raté semaine passée. eh sama yoon nekkul ci sa ay cours yaa ngi may dégg li nga war a def laa bëgg nga dem def ko te wax bi bu mu bëri du dangay wër dina dama lay maltraité yow maltraité gu ma la sax te xam nga lan laa mënu wax ji ndax dama stressé taluma ko sax te nga romb ma. jeex lu ne fàng kenn du ko jeex xam nga lu ma bëgg nga dem génne Pape Cheikh tourne suite ndax woyu nga kacca baa nga bànni nga assassin nga yéen daal nii rek ngeen def jógee Mali boo la jógee foofu ba seen dara baaxatul ngeen ñëw di liggéey doomu aadama kii autorité la ci réew mi te dafa am ay mbokk man nag maa la gën a capable gën la woyu génneel Pape Cheikh tourne suite yow laay waxal nag nu ma gën a gaawee ne di ko may gënal man nga gën a rakkaat waaw. c'est à moi que tu demandes Pape Cheikh. Ah, ma la ko laajul ku ma koy laaj. si tu le vois tu le dis. waaw ah. si Soxla est en de le chercher. ma la ma yow laay recherché te gis naa la dama ne nga génne kii génneel Pape Cheikh de suite laa wax bu dee da koo lekk baa nga copp comme ni nga ko waxoon balaa may génn fii dinaa la copp dinaa la mal et je vais te laa la je te parle tu vas amener Pape Cheikh c'est mon de suite va sortir Pape Cheikh ah. soxna kii ko muy waxal. jigéen gu baax du comporté nii ak ni nga mel macha allah yow waroo doxalee nii soo amee loolu naqar nga ñëw régler ko tranquillement mais pas ne yow waroo yow nekkoo koo xam da nga a coow. tu n'as aucune classe. Eh? sors d'ici. eh je sors pas. Eh, eh, ma may ma may ma nekk ma nekk les may ma. sors d'ici tu sors de moom Nathalie. waaw am na ma jàpp la. ma jàpp waaw léegi jaay ma sant jaay ma sant comprendre situation bi. dinaa comprendre il a amené mon frère. c'est une sortie. Almam fait deux flops. Almam fait deux flops. Fay elle m'a énervé cette fille là. Elle est bavarde. alteexa la famille Sissoko Maxa gisagu leen dara sax vous avez touché laal ngeen laalaakee si tu es fâché dama nga lox monument de la renaissance Hello Oui. Ah bon Ça m'étonnerait, hein D'accord, je, je, je vais l'appeler. Je, je vais l'appeler. su ma ko woowee ba pare man je vous reviens oui juste le temps d'arriver chez moi non d'ailleurs je, je le tout de suite je, je l'appelle tout de suite merci à vous je vous reviens merci au revoir ma bëgg a yëpp allo. yow lan moo tax jàngi wa fan yëpp. mais ku la wax loolu. sa professeur léegi la raccroché ak man na ma ça fait une semaine jàngi woo. non du loolu de c'est que semaine passée j'étais un peu malade. mais c'est pas vrai feebaroo. j'étais un peu malade y a rien de grave arrête ça. c'est pas vrai li nga may nëbb nag xam naa ko Yacine moo lay maltraité mais man dinaa ko lijjanti. waaw ndax yàlla boog ndax yàlla boog ma jot la aloo Astu. waaw Astu na def. maa ngi baa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. Astu dama laa woo ba sonn. la ba Astu mënuma laa jot. dëgg la Astu noo def baa yaa ngi ci jàmm bu baax a baax Astu. maa ngi ci jàmm ngi sant yàlla li may njëkk a def mooy di jéggalu. xam naa ne li li nga nekk metti na li la metti boo xoolee rek war ngaa xam ne man mii metti na ma wante astu baa doo déglu seytaane ah Tindi ah bëgguma nga déglu dara bëgguma nga dégg dara ndax astu lu nekk xew na waaye xamal ni sonn nga daj nga lu nekk ci sëy bi ba mu am tey jii jàppal ni yow yaay jabaru Pape Cheikh dama bëgg nga gën a muñ woo naa sa yaay waxtaan naa ak moom li ma bëgg moom la bëgg astu lépp lu la naqari man la gën a naqari Pape Cheikh lii mu def am nga naqar am nga métit am nga gàcce mais xamal ni man maa la ko ëppale fuuf dama bëgg nga bàyyi sa jooy nga pomp sa rankoñ xam ni maa ngi nii ci sa wet loo yëg rek yëg naa lu ko raw astu gàcce gi ñoo ko bokk waaye nag dama bëgg nga xam ni Pape Cheikh fu mu nekk bàyyiwu fa boppam de ndax sa jëkkër la mais sama doom la xam naa ko bu baax lii mu nekkee du jaar muñal nga bës sa xol metti na man boobu ba tey maa ngi lay wër maa ngi xool ci loo nekk dama la jotul li ma bëgg nag dama bëgg nga déglu ma bu baax Astou su ma sañoon nga jël sa yooyu nga am foofu sa bagage ya nga yor nga ñëw ci sama wet nga toog soo toogee ci sama wet kenn duñu xamal gàcce gi dina wàññeeku dina ëpp sutura ndax kat sama wet mooy sa place ndax yaa Pape Cheikh loolu ngeen bëggoon da bëggoon boo leen jógee fa ngeen nekk ngeen ñëw toog ci sama wet dama bëgg nag metti na laay astu metti na xam naa ni metti na duma def lu lul di la defal naan la muñal xam naa ni muñal teel na ndax yaa ngi ciy soog a dugg waaye muñal ku muñ yàlla jàppale la waxtaan naag sa yaay ànd na ak man mi ngi lay jàppale. dama bëgg nga jël sa bagage nga ñëw ci sama wet ak nga ñëw toog soo toogee maak yow ñu ànd xeex bi dina neex te dina oyof loolu laa bëgg de nga defal ma ko astu bàyyil sa jooy wala nga wax ma fi nga nekk. man ma fekk la fa. wax ma fi nga nekk. non jaru ko jaru dinaa incha allah. su la neexee su la neexee astu man ma ñëw jël si la. déedéet déedéet maman bëgguma la déranger mais génn kenn xamul dinaa fi ñëw dinaa la woo incha allah. di nga ñëw astu. dinaa ñëw. jàppal ni nag lii ma lay wax. yaay moo koy wax doomam sama doom nga waxoon naa la ko te sëy bi amul rawatina tey bii sëy bi amee dama bëgg épreuve yëpp man ak yow ñu bokk ko kon astu. bësal sa xol nga ñëw dinaa la xaar. Mm, bu ñëwee ñu gën a waxtaan sëy rek laa bëgg. dinaa la jàppale nga sëy bu baax dinaa la jàppale dinaa la xaar dégg nga. bësal sa xol nga bàyyi sa jooy yi waa kay mbay.